si Albert. ñi nga xam ne dañoo jël beneen yoon ngir gàntal processus électoral bi ginnaaw bi téeméer ak ñaar fukk ak député daal di dëggalee commission d' enquête parlementaire bi loole nag ñoom ñooñee dina jàkkaarloog ak ay jafe-jafe ak ay résistance maanaam ñoo xam ne duñ ci d'accord ñu jaarale ko ci yoon wala ci politique ñaari juge conseil constitutionnel yooyu nga xam ne dañ leen tuumaal ger ndax dinañu tontu ci commission d'enquête bi nga xam ne assemblée moo ko taxawal conseil constitutionnel tam ndax dina matal liggéeyam bi nga xam ne tàmbali na ko ginnaaw bi ñu publier liste vingt candidats yooyu muy ay laaj yoo xam ne amaguñ ci tontu li ci wër daal mooy processus bi nga xam ne tàmbali nañ ko te mu dëppoo ak constitution ak code électoral dellu ci ginnaaw dina jafe lool ndax li leen tax a jóg daanaka bokkul fexe ba respecté calendrier électoral dem ci mbañ gàcce gi tànn ni mu leen neexee juróomeelu président wala ñu daal di reporter élection yi ñaari yooyu daal fi mu nekk nii moo fi nekk mu nekk nag loo xamante ne diggante yoon ak politique dafa mel ne ñoom ñooy xëccoo. crise bi nga xam ne moo lalu ci processus électoral bi dafa mel ne lu daal di taxaw bu ñu sukkandikoo ci division maanaam xaajaloo bi am ci diggante ñaari camp yi ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk politique bi. campagne électorale bi nga xam ne nag fii ak ñaari fan lay tàmbali dina doon loo xam ne coow loolu dina ci laale fi ba campagne bi di jeex ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor. nguur gi rawatina président de la république tànn ndax nañuy wéyal élection yi wala dañ koy daal di gàntal ak coow li ci am laata moo gën a yéex te li leer moo di ne élection présidentielle 2024 yi dina indi nag benn crise politique boo xamante ne mosuñu ko gis Sénégal